ministre de l' supérieur nee mom ak ñu mu àndal ci maire yi maire yëpp andal ak responsable ak responsable politique ñu département de Podor ñu bokk nouvelle dynamique nee dina may commune 22 billets pour la mec daanaka commune bu ne dina am dina am benn billet dina may wa ADEP ñaari billets Makka dina may wa Lansar ñaari billets Makka Alsar bu Racine si nee tamit Racine si teg na ci loxoom ñaari fukk ak juróomi million pour jigéen ñi dina ko dina ko teg ci seen loxo pour ngeen dimbali ko ci lépp li nga xam ne mooy activité de développement. Cheikh mar nee na arrondissement bu ne dina ci taxawal centre bi nga xam ne mooy euh, nekk naataango centre bu mu am ci ministère am ni ñu ko tuddee centre de recherche et d'essai centre boobu fonds lu mu am di toll na ci 6 million dina ko ci def centre boobu dina former. ñaari junni jigéen ñaari junni jigéen di ko former ci chaque arrondissement ñooñu nag pour ñu taxaw ci dimbali jigéen yi di dimbali jàppale leen tamit ci lépp li nga xam ne mooy soppi produit yi ñu ci sunu mbéy di ceeb di soble di leneen lépp li nga xam ne mun nañu ko soppi. dina ci boole ñaari moto pompe pour chaque commune dina ci boole benn frigo benn congélateur loolu yëpp pour jàppale jigéen yi seen denc pour mun a denc seen lépp li nga xam ne dañ ko am ci seen seen seen i ak lu ñu meññ ci ci ci gox bi. waaw nee na CREC CREC bi CREC bi boo ko formé ñaari junni euh, doomi aadama di jigéen ñooñu tamit pour ñu mun a liggéey mun a tamit habilité ñeneen ñi nga xam ne dinañ leen formé ay relais la ñu doon ku ne bu nee ci doxam dina mun a euh, formé ñeneen bokk benn nga xam ne euh, daanañu bii ci journée ñetti journée yi formé nañu cinquante femmes ci boobu anam ah loolu nag dañu koy jaajëfal. Ah, di ko gërëm tamit di nga xam ne ñun tànk ah dinañu ko eh, eh, soppi waaw